se dit que les jeunes, ils partent peut-être parce qu'on ne leur a pas donné suffisamment le sentiment d'appartenance, peut-être parce qu'on ne les a pas suffisamment euh, encouragés, on n'a pas suffisamment, on ne leur a pas suffisamment fait ressentir euh, cette... reconnaissance parce que euh, il y a certes l'école mais il y a l'entourage et quand je dis entourage je ne parle pas simplement euh, des parents, je parle de tous ceux qui ont réussi et qui doivent tendre la main à ceux qui n'ont pas les mêmes moyens. Et c'est ce que, à travers la Convention du Bawal et tous ceux qui l'accompagnent, il a essayé de faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes très réconfortés par la présence du ministre euh, Moustapha qui est venu aujourd'hui manifester son soutien, sa présence pour une initiative comme ça à l'échelle régionale. Et c'est également l'occasion de saluer tout le comité d'organisation. C'est magnifique. Euh, Euh, comme ça qu'on peut euh, mettre au cœur des préoccupations et des enjeux le savoir et l'excellence. Et euh, dans une contrée qui est celle de Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, qui rime avec excellence dans tout ce qu'il fait euh, qui rime avec effort, qui rime avec euh, élégance, qui rime avec endurance et qui rime avec responsabilité, je pense que de telles pratiques euh, ne font que perpétuer, euh, donner écho en fait à ces enseignements. Et c'était le lieu pour moi au nom de la, du, du chef de l'État et du chef du gouvernement, de dire à ces enfants que nous comptons sur eux, de dire à ces enfants que le pays compte sur eux. L'avenir et le futur du Baol, c'est nécessairement, euh, on n'a pas le choix, ce sont ces enfants. L'éducation universelle du Baol, euh, di rafetlu tout d'abord euh, teewaayu kilifa yu tedd yi fi teew tey di rafetlu également ministres yi au niveau étatique qui le ministre euh, Diba qui est euh, le ministre de, de, de, des Finances et du Budget euh, qui a été représenté par son secrétaire général di remercie également le, le ministre de l'Éducation nationale Guirassy mi nga xam ne bàyyi na lépp mu ñëw pour journée bi. alors yéen a ngi ci ñetteelu édition bi. Mhm. lan mooy secret bi ba ngeen mën a defal exactement ma bu ñu doon xayma dañuy wax ne euh, depuis deux mille vingt deux ba tey euh, ba tey ci ngoon ji nii rek euh, am nañu plus de mille bacheliers ya nga xam ne convention bi récompensé na ko déjà donc loolu réalisation bu mag a mag la ba nga xam ne day contribuer ci développement wu développement économique et social plus tard parce que si les gens sont bien formés li ci tegu mooy dinañ mën a liggéey dañu mën a am expérience ba nga mën a dem liggéey pour mën a teddal seen waajur jàppale Bawol parce que problème yi bari na trop mbënd maa ngi fii ndox problème mu ndox maa ngi fii ci yeneen aussi euh, problème yu bari dans le transport dans le domaine de l'énergie donc l'idée c'est que ñu il masse critique de Baol Baol une masse critique de jeunes euh, sénégalais ya nga xam ne dinañ jàpp ci liggéey bi li ñu may ci gën a bëgg a yokk moo di liggéey bi ñuy def dañ koy àndandoog ak murid professionnel murid professionnel benn cadre de réflexion ya xam ne day jàpp bu baax a baax a baax ci liggéey bi nga xam ne dañ koy def ci Baol di jàppale donc dañ leen di remercier bu baax a baax parce que ñoom euh, liggéey bi guddi bëccëg Euh, noppaluwu ñu. ñaata ndongo ngeen primé ak euh, lan leen jox. donc fi mu toll nii tey journée bi 224 euh, la ñu la ñu primé je pense que ñu ñu primé am nañu récompense yu yu yu mag a mag ñenn ñi am nañu ordinateur am nañu ay livres nga xam ne ay kàngam ñoo ko bind ci Bawol ak ci ci ak ci Sénégal de façon globale ak ay portable ordinateur ak xaalis ba nga xam ne dañ leen koy jàppale pour ouverture bi di ñëw. alors budget bi ci ñaata lay toll. donc budget bi je pense que plus de plus 300 millions qui ont euh, euh, débloqués mais li gën a am solo mooy convention bi ñu ngi liggéey te dinañ continuer di liggéey ak murid professionnel ñi nga xam ne ñoo nekk fii tey li ñu mën a jàpp à partir d'aujourd'hui convention bi euh, primé lu ëpp plus de mille bacheliers